الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله فنوفي وبه برهمه هتفنوا فيه به برهما أنا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله هتفنوا فيه به نور الله هتفنوا فيه به نور الله الله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد هبك عبد الرحمن بر الذي يراك وهو يكتال أدعوك للنفس وللأولاد وللتلاميذ بك اعتمادي الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد هبك عبد الرحمن بر الذي يراك وهو يقزان الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله mbooloo mi gannaaw bi nu sante yàlla julli ci Seydina Muhammad ñoo ngi nuyu ñëpp ci am mbégte mu yaatu kii nuyoo nag muy tafsir Abdourahmane Gaye mu ànd ak Chérif Mamil Aydara mi nu bokkal baay ba noppi waaye nag ngeen xam ni ambassadeur ñëw na ànd ak la marraine Adja Toudiouma Dieng Diakhaté ambassadeur yi noonu consul ngi ci wetam Thierno Abdourahmane Bare ngi ci yoon mi ngi ñëw nit yàlla kooku nga xam ne yàlla rek ko ñor ak rasulillah yi ñëw Paris nag toj ko dajale ñëpp ci génn buumug yàlla mbooloo jokkalante téye ci buumug yàlla gi ak fédération bu mag bi nga xam ni mooy daayira soppay Thierno Abdourahmane Bari à travers le monde ñoom ñëpp ngi ni toog dara ci ñëw léegi mu mel ne nag turiduuna wajilaahi président bi ah président bi du Ousmane Balde di nit ku yàlla baaxal ci yar ak teggin ak personnalité ak teraanga am jigéen ju baax di Idiatou Baldé nekk ci wetam ca à côté de chaque grand homme y a une grande dame ñu ngi koy gërëm ca la ko seereel waaye di gërëm nag Ajaratu Maama Dramé Ajaratu Maama Dramé daayira bii mu yor mooy daayira yaa Salimata Sow yaa Salimata nag mooy wéy juru Cerno Abdourahmane Bari mu wëlbatiku nag taxawal ko fii ci diggu Paris tàllal loxoom askanu jigéen yi ñu ngi nii toog Paris gépp ñëw nañu ba Rouen délégation jóge nañu fa ñëw ba Miro délégation jóge nañu fa ñëw banlieue bi kenn desul Paris nag waxi noppi xoolal góor yi seen càmmiñ yi kenn desul nit yàlla yëpp génn nañu waaye nag kii ko ko tax ñu def ko mooy Thierno Abdourahmane Bari mi boole ñëpp ci buumug yàlla gi jokkoo jàmbar jaa gi nii may jàkkaar lool mbooloo jokkulante ci buumug yàlla gi di daayira boo xam ne moo regroupé taalibe yi mu am amul tarixa tarixa tijaan tarixa muridiya tarixa laayeen surafaaw yi ñoom ñëpp la boole kuraan ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulillah Ceerno Abdourahmane Bari teg na loxo fii ci biir Paris boole daayira yi boole doomi soxna yi boole leen ñoom ñëpp taalibe boppam nag mu yar leen jàngal leen alxuraan ba nu mémoriser ko mu wëlbatiku nag tàgg rasulilaay jox leen bay di ci soo ba tey ci la nekk ñu ngi ni moom la ñuy jàng am mbojj daal madame la pour la grande dame su borom bëggee xam nu pepp ma toll day fekk bu mu koy bees lii lay expliquer lépp danoo bëgg boo léegi nga xam ci bii ñu la jox ni mu toll ci ñu la ko jox waaye nag ñu mu toll ci yow li la ko may nag muy lislaam mi nga fonk boo teralee lislaam ca Sénégal ñu wëlbatiku di teral fii ci Paris à travers l'islam kon xam nga ni sa yàlla nangu na ko damay jox nag sama jigéen sama xarit ndax nag moo dalal kii mooy ajaratu alimatu mi nga xam ni lu yëngu ci biir réew mi ci wàllu lislaam ñi teg ko ci loxoom mu yaru lool xamee lool bëgg président lool mu woo ko barki dem moom ñëw jox ko passement ko di ko dama ca rasulilaay dil si te nga baal maa xeex naa la koo defal kon alimatu kàddu gaangoog yow laay déglu jërëjëf Mbaye loolu nga wax mun ma cee delluwaat ni ma la waxoon démb ci avant premier bi waxaat Ani ah, ñi fi tok ñepp ndax li tabarkalla du ngeente du ciet yefu yalla. la bu ñu wootee ne ci yëfu yàlla ngeen wuy si yëfu yalla yàlla moo leen di fay ndax am ngeen lo xamni tay ji wax mo ni musfi am de waaye am ngeen lo xamni tay ku tàllal solo ko ñaan yaakar naa ni dina ngi lol barka allah ji Aziz ma ngi leen di ñaanal guddi gi ngeen def yalla nañ ko na gën ndax mama jigeedi wuñu mama jigeedi wuñu lii man dama kontaan sama xol facebook mu wax dama jige barke dem mak febar di nuyu nak son excellence Basirou basir sen mang lay nuyu ndax ba ma president joxe bibi bi yaa yak le consul general mo wax ak mom ci bureau ba ngeen wax man li ngeen di wax ak man mu na president ne do jox kayit la koy wagnal ben par ben nga dem te yex na la ko jox loolu ab man ta passé lolou ci lolou la ndi di waye sama waji tok la grande dame de l'ia xam nga tax makoy koy parce que ñu ko woo l'islam mu ñew foo mënti taxaw sa tànk lii moo gën li ngay def la nga daan def ñu la cay woo parce que loolu nga doon liggéey àdduna bépp xam la ci waaye ba nga defee loolu ba xam ni kat tabarkàlla ñëw nga ba jëmi jamono da nga lu ma amati yàlla laa ko jox ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man ci loolu laa lay gërëmee gis nga jàkka yeeg jumaa yeeg daara yeeg li ko bàyyi ca gannaaw rek nga jëm waaye jaxate bàyyi woo loolu li ma ci gën a neex nag mooy nag ndeysaan afis islam yi xam ne seen bàyyi yàgg nañ ci téere yi ñu donnu ko nag te si Abdourahmane gay mii toog Yunus Kan Boy Dembane yow li nga def da nga koo donn lii nga def da nga koo donn li nga donn nag moom ngeen di fii tabar fa kàlla ñu lay ñaanal yàlla baat bi yàlla ba yàqu li ngay wax ci tariqa tijaan yaa di ko wax képp ku képp koo xam nga ashadu an la ilaha illallah muhammadu rasulullah amul xaaj ak seen yàlla la yàlla suturaal bala ma war a wax ak yow sax Chérif laa war na jëkk waxal ndax da si loolu def waye nak sherif maa ngi lay nuyu day jox dalukaay sama samaam muhammad rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, ak sama xarit bobu nga andal ngeen bok nday ak bay mu bëgg ma am fuma tek di ibrahim maa ngi leen di nuyu ci sen barke mam seydina muhammad rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, di agal di ñaan yalla na guddi ki yàlla nañ commencé bismillahir rahmanir rahim agale ko alhamdullilah rabbil aalamiin amna ci ndort yalla na guddi ki neex yalla na barkeel tabar sama sama ñaar doom yaangi tok yunus kan boy dem bané fofu dong la doon yam di nak ala alagi set mbay ak ñi mu andal bu ma leen limé damay juum barki dem ma ak ñom ci Oslo ñu teral ma am luñ ma fa defal tabarakallah yow nak tabarakallah guddi gi sa guddi la te ñàkk ñaan lool yalla la yalla fay sama mbokk. jërëjëf li ma wax yalla la ko yalla fay. jërëjëf madame la grande dame wolof dafa leen ni mbojju bu bëggee bor xam bor su borom bëggee xam nu ma tollu day fekk buñ koy bees historique gi événement bi rek la lay xamal juróom-ñaari at ñi nga ànd ak Cerno muy dagg billet dina ko dagal nuy ñew fi di wër le monde entier di dundal l'islam tay nak dama la bëgg xamal ni 2002 ci le serigne bi créé daayira mbolo jokkalante ci bu mu yalla gi muy création bu Bakel ndax limu jur bari na. ñii fi teew tey ci saal bi Angleterre ak daayira yu ko wër yëpp ñëw nañu ñii avion la ñu jël ñii dawal seen oto ñëw Suède ak daayira ya fa nekk yëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi ñii jël vol ñii jël oto Norvège ak daayira ya fa nekk yëpp ñëw nañu président yi yu góor yi ak yu jigéen yi kenn desul ñu ngi ci saal bi Italie. ak daayira ya fa nekk ñëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi Allemagne ak daayira ya fa nekk yëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi Amérique ak daayira fa nekk yëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi Espagne ak daayira ya fa nekk yëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi Hollande ak daayira ya fa nekk yëpp ñëw nañu ñu ngi ci saal bi waaye France gii nga xëy nag moo teeru ak daayira yi fi nekk yëpp di turi diina wajillaahi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 إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستهدي به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد waa ala alihi wa ashabi ngir yàlla ngeen dégloo commencé nañ programme bi dal leen ngeen déglu ñu dugg ci yàlla ji dal leen mbokk yi dañuy doole sant yàlla bu baax yàlla mi nga xam ne fi nga jàpp ne foofal la dalee foofa la yem yàlla mi nga xam ne fi nga jàpp ne foofa la dalee foofa la yem moo tax borom téere ba muy risaala mu ne laa li awaliyatihi ibtidaa wala li axiriyatihi intihaa luy loolu rëdd wi biñ koy rëdd fekkewula ko amul benn mandarga booy mën a wax ne fii la war a commencé soo ñëwee buñ na la rëdd wi fan lañ ko commencé woon doo mën a wax ne fii la waaye foo ko commencé yow rek muy foofa ci yow foo ko tëjee rek muy foofa ci yow yàlla nag noonu la kon ñu ngi koy sant moom yàlla moom le di wax nag ne sant googulee dañ koy teg ci sant ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne yàlla da koo xool ba mu neex ko moom yàlla mu ne kuntu kanzan lam oraf fa aradtu an oraf fa xalaqtu xalqan fa biya aarifuni nekkoon naa koo xam ne kenn xamul ma man yàlla ma doon koo xam ne kenn gisut ma ma doon koo xam ne kenn dundut ma bi ma bëggee ñu dund ma bi ma bëggee ñu gis ma bi ma bëggee ñu xam ma dama jeqi sama bopp génn ca benn dogit gaa yi ñu ne kon yàlla ja manqué na di ñu ne déedéet yàlla ja du manqué kay waaye loolu xajut fii dana ñëw ca kanam bi mu jeqee loolu nag yàlla nag ne dama bëgg léegi ñu xam nasraan bi ne كوكا كات لا يالا جيقي نونا ينت يالا عيسى لا سي فيني ينتي على موسى لا كنن نليلا كنن نليلا واي ديلو سي اتال كون نان ديم سي خم خم خم خم موي تخ ني مانا خم كان لا فبيا فابي 80 لا بابي دال موي 82 يا 10 موي 92 ميم دي ميم محمد صلى الله عليه وسلم miim 40 ha 8 muy 48 plus 40 mooy miim nga ca des muy 88 nga indi daal muy 4 muy 92 kon hadis bële nga xam ne hadisu qudsi la yàlla ne dama nekkoon ku kenn xamul bi ma bëggee ñu xam ma dama génn ci sama bopp luy tax ñu xam ma mu ne fa jaar leen ca loola aarifu ni pour ngeen xam ma kon ndeke booba yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam la doon junci ah jataay bu tol nii ni ko Moodu Mbay ubbee doy na sëg ak soxna su baax sale ubbi nañu ko ubbee nañu ko yàlla ubbee nañu ko yonti yàlla muhammad dalal nañ kilifa yi fi ñëw délégation nguur gi dalal na leen dalal boo xam ne kenn ku nekk sa sedd na ci bu fekkoon ne sax da ngay romb ci trottoir bi nga xam ne bokku la ci sax soo ko déggee sa xol dana sedd ba ñëw teew ci jataay bi la sa xel di daj ah kon Modou Mbaye jërëjëf ku jëra sant nga waaye li tax ñépp bàyyi seeni nelaw bàyyi seeni soxla bàyyi ko fa nu bàyyi ko ci dëkk yu soriwante dagg seeni billet ñëw toog ci jataay bi ah loolu li ko jar rek moo ko mën a jar liko jar rek moko ko jar muy kan sayyiduna muhammad muy kan fatihi lima ma muy kan khatimi lima sabaq muy kan di muhammad mi nek ci bir muy ban muhammad mi nek ci biti muy ban muhammad ma nek ci biri bir bobu Cheikh Ahmed Tidiane tudnako na ko tal'atul xaqi manam xaqi maanaam def ne aynul xaqi allati tatajalla minha urusul xaqaiq boobu dafa duñ ci dugg de buñ ci duggee dañ ciy fanaan de aynul xaq bi sées bi ci la bokk yow mi toog di ko wax ca nga bokk ndox mi ci la bokk asamaan si ci la bokk suuf si ci la bokk mu ne aynu rahmati rabbaniya jëmmi yërmande ji nga xam ne lépp lu lay dimbale yow mi yëg ne yaa ngi nekk la ngay jël di ko suturloo la lay taaral fa ngay dëkkee la ngay war lépp yërmande la ci yow شي احمد تيجاني من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوبو موي بي فيغ نдах دو في قاج ولاف نينا لي دوف سي ناغ يقاجول سي تينلي مونيكو عين الرحمه الربانيه مونيوات نيكو اللهم صل وسلم على عين الحق عين العقبي مي حقيقه المحمديه سوي اود يالا دي دوخ دي دوخ باسم ياك nga yek ne yow am na looy bëgg te li ngay bëgg moo lay mottali parce que jàng nga téere yëpp muy téere nasaraan ya muy téere sharia yi jàng nga alquran waaye ba léegi xamagula lan mooy cafka alquran bi yaa ngi koy wuut di ko wuut ba mu rek am lu la commencé xeeñ xaqiqatu muhammadiya bi commencé na la dugg nga yëg ne li la manqué woon yaa ngi koy amee fan ci nit yàlla yi xaqiqatu muhammadiya bi commencé na la dugg boobu nag nga di ko raas. di ko raas ba teg ci sa loxo bi mu nekk ayinul xaq bi boobu nag la koy doxal ba tax ku ak ci ci moom mucc ba tax si Ahmadu Tijaani ne yow yàlla dimbaleel ki jëm si ci kan sayiduna muhammad fan la ko wax allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniya fële mu ne ko allahuma salli ala sayidina muhammadin il fatihi li ma uxliq ubbilal ki jëm si ci moom muy kan ki jëm si ci sayiduna muhammad parce que ku agsi ci yonent bi rek texe nga tey texe nga ëllëg ak koo mën a doon booy dox tànk agsi wala ci yonent bi rek des na agseegu la Cheikh Ahmad Tidiane mu ne yow yàlla dimbaleel mu agsi ki jëm ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ban yonent mu ne xanaa naasiril xaq bil xaq kii dimbale dëgg ci dëgg boobu nag li koy doxal muy xaqiqatu muhammadiya boobu moom la Cheikh Tidiane indi ca mujj ga mu ne ko talaatul xaq bil xaq dëgg gi yëgatu ci biir dëgg gi puus dëgg bu génnee ci dëgg googu feeñ muy muhammad mi nëbbu muhammad mi nëbboo nëbbu ak muhammad mi feeñ muy muhammadam zahir di muhammadam baatin di muhammadam baatini baatin jataay bi nag tey da koo laaj بلا منامي الله لا إله إلا الله الله لا لا إله إلا الله عبده ليلا من الحرام إلى مسجد أقصى بلا منامي الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لعبده ليلا من الحرام بريد مسجد أكثر إلى منامي الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله عبده ليلا من الحرام مسجد أقصى بلا منام ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله ألا لا إله إلا الله ألا ألا لا إله إلا الله ألا ألا baat boobu fi bu nduggee ndax kuy wax ci yonent yàlla Muhammad ci laa ilaha illallah nga mën a commencé ci nga mën a tabbi si haat moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam boo demee ci benen hadith ah na ma borom sharia yi jegal nak yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ne benn ba tangini xam ne boo ko tegoon ci balance law wudiat law wudiat alsamawatu wal ard ala kifatin wa laa ilaha allah la rajahat laa ilaha illa allah yonent bi mu ne boo jëloon asamaan ak puwaaxam suuf ak puwaaxam soo ko tegee ci benn balance nga jël laa ilaha illa allah borom yey firi ñu ne dana ko watat ma ne déedéet du watat de boo demee ci firikat yëpp dana ko watat la ñuy wax waaye déedéet la rajaxat la ilaha illa allah laa ilaha illa allah daf leen fay jëlee daf leen di wann la rajaxat dana leen wann laa ilaha illa allah lu tax boo ne laa allah bàyyeetu la yow ma doon wax bàyyeetu la li nga toog bàyyeetu la micro ba bàyyeetu la dara acca ñu ne kon na taalibe yi wàcc si karal sëriñ bi boobu nag ñu daal di koy abbu ba beneen jamono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 Hallelujah.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 li nu yéene woon yàlla defal nanu ko mooy saal bi fees dell ba benn chaise bu nit di toog amatul loolu nan ko sant yàlla Ceerno Abdourahmane Bari nag kii nag ku yàlla dimbali ba nga teg sa bët ci jëmmam ju tedd ji war ngaa santaat yàlla kon ñun ñëpp nan maase ci alhamdulillahi rabbil alamin bii nu ko yàlla defalee nag yar nañ ko muurloo ndax kii jëmmam ju tedd ji mooy jëmmi muhammadu rasulillahi mu wëlbatiku nag yor mission bu ko sunu borom jox mu góorgóorlu ci jëfam ak ndimbal li ko yàlla dimbali ba fab jëmmam ji boole koog jëmmi yàlla ji muy ndox mu seey ak suukar boole naan rek mbaa boole tuur mu lëkkali ko ak tarixa yëpp tijaan ak murit laayeen ak shérif ak leneen ak leneen mu boole lépp yemale leen ci benn buum yor mission bu bi di ko dox à travers le monde fii ñu taxaw moo ko créé en 2002 tudde ni kon eh yéenay mbooloo jokkalante jàppoo ci buumu yàlla gi fédération soppey daayira Cerno Abdourahmane yépp àndandoo jokk si ci loolu ren nag ñu tànn ñaari daayira turiduuna waj lillaahi ak yaa salimata sow mi nu duppee way juróom wu tedd wa nu jox leen ndigal ni leen yéenay organiser conférence bu mag bii tey ci Paris ce 14 du mois octobre l'an 2016 yàlla nañ ko teewe ay déwéni déwén ñii fi toog nag waa Angleterre ak daayira bu fa góor ak jigéen ñëw nañu waa Suède ak daayira bu fa góor ak jigéen ñëw nañu waa Norvège ak dayre bu fa góor ak jigéen ñëw nañu waa itali ak dayre bu fa góor ak jigéen ñëw nañu waa Norvège waa Allemagne wa Amérique wa Espagne wa Hollande ak France gi ñu ñëw di base bi tey képp kuy soppeeku Thierno Abdourahmane Bari à travers daayira yi ñëw nga ci góor ak ci jigéen ñuy gërëm nag les invités di gërëm son excellence le président de la république Macky Sall xam ngeen ni bët mën naa xool lu ko neexul aw lamiñ mën naa tudd lu ko neexul waaye tànk nag fu mu dem neex son excellence Basiroumi mi tok ci le président de la république lay dox Lolo waral ngeen gis ko mu tok ak le consul Diallo di délégation bo xamni il président de la république le da nga ko gëm da nga ko xam le président baayam bi mu wàccee liggéey bari ki démb moom la président te benn avion spécial def ci cercueil bu dégg yóbbu leen ko Fuuta denc ko ci ñëw kooku mooy kan ay ajut aw jub Mbàkke mii toog di jigéen joo xam ni bari ki démb rek ku teew ndakaaru dégg li président de wax teg ko ci derm bii wax teg ko ci confiance bi mu am ci moom wax ko teg ko ci satisfaction bi mu koy liggéey ci biir diaspora bi war a xam ne ajut aw jub Mbàkke mii jigéen la ju président de la ci biir xolam. ndax liggéeyam rafet na kon teewaay mbii mu teew ànd ak mbooloo mii mu àndal dikk teewal fa président de la république ànd koog nawleem yi bég nañ ci lool yàlla yàlla fayal ñu ko ñuy nuyu nag te di ko beral nuyoo ajatu juma jëng jaxate mi toog ambassadrice itinérante auprès du président de la république son excellence Macky Sall di jigéen ju teel a am jom lii ñu ko defal tey dan koy delloo njukkal njukkal liñ koy delloo mooy lim lépp la ci lislaam soo demee Sénégal ku mu am ca bokk moom deret war na la rasulillah ay tàppeem ay conteneur la koy def lal na ko ci jumaa yi ca Sénégal gépp morgue bu mu dem équipé na ko en climatiseur boole kook nag ubbi nag Chalimar Couture créer ay emploi wëlbati ko rek di jëf lu baax ci wàllu social ba président ràññee ko ni ko coppet ni ko mala tànn kaay demal ma ci diaspora bi loo wax maa ko wax ajatu jumaa ngi nii toog jigéen ñi waa Paris àndandoo ni kon nag sunu bis bii ñu amul ku dul Thierno Abdourahmane Bari xam digganteeg moom ci kóllëre kon moom la ñuy jox parrain bi mooy marraine bi moom mii moo toog moo teeru gan yépp soo ko di ko toog bale ko jëf fi teraanga yu am solo ñuy gërëm nag ajaratu faama juug mais nga xam ni teraangaam léegi la ko indi présenté ko fii ànd ak l'ensemble de ses sœurs sénégalaises ñuy vivre fii ci Paris ca muy ànd ak moom ca rasulillah yi mu boole ko lu maam togg ko jox ko nit yàlla yi faama ñu ngi lay gërëm ci dire sant daayira El Hadji kajaa jàllo Diallo Elbof waaw waaw daayira Elbof Kaja Diallo ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant sëriñ bi fédération femme gambienne yëpp teew nanu ajartu yaama Sidibé vice présidente bi di Mama Dramé Ami Daabo ñoom ñëpp ñëw nanu waaye nag ñu ngi lay leeral ni la ajaratu Xadi Jóoreel mi nga xam ni jigéen ñi bëgg ñu baax lépp ci moom la ñuy roy mu làq ngërëmal sëñ Babacar Si làq ngërëmal Cheikh Sidi Hadji Malick à travers El Hadj Abdoul Aziz Si Dabakh ak Cheikh moom Mamadou Mansour mi ngi nii toog ànd ak njabootam gépp waaye nag El Hadj Mor Mbaye alaaji mbay sekk ajaratu umi jàllo ci daayira mutahabina fillahi di représentant Cheikh Sidi man Mansour si ma ko doon xool ba mu nekk ni ko alaaji moor mbay mu nu ko si mu nu ko yàlla boo gaaw a moor alaaji moor a ngi nii toog ànd ak mbay sekk ak staff bi yëpp juróom-ñetti at ak mu jot mu ne mu ñëw ak enveloppe am ak i trangaam dikk ànd ak yow ba set yàlla na yàlla fayal ñu ko ñuy nuyu nag mbooloo mi fi teew yëpp cay gàttal bu nu sañoon dañuy tudd ñëpp kenn par kenn waaye daal ngeen xam ni sëriñ bi bég na ci daayira yi bég na ci doomi aadama yi jàkkaarloo ak moom ndax jëmm la joo xam ni boo déparé di wuti ku lay defar sa xel la ci Cerno Abdourahmane Bari bala nga ak si fekk mu taxaw ni la yàkkamti woon naa la ñëwal ñu àndandoo ngir yàlla ak rasulilaay ma defar la bu boo liggéey boo dee sa borom dóorus Cerno Abdourahmane Bari di dund ak moom ci biir àdduna ca xamuloo ko erreur magul loolu keppaaram da ngay defaru keppaaram da ngay yokku keppaaram da ngay gindiku keppaaram da ngay yëg yàlla ak rasulillahi leneen ñoru ko loolu di nag nit ki ba teg la ci loxee rasulillahi yàlla na yàlla ñu la bari pula paree ngi pari nag fi la lépp war a pare ñii toog ñëpp kenn ku ci nekk am nga problème mu xol am nga problème mu njaboot am nga problème mu jamono te jàkkaarloo yoog pajuk aajo la ñu ngi lay ñaan yàlla na lu yàlla rus ci sa jëmm ji fajal na suñuy aajo ñu ñu fi teew ñépp yokk ba yëg ko ànd ak yow ba li nga yéene ci lislaam nga jëf ko ba matal maxa jaañ nag mi ngi nii toog di sa bi bu mag bi jóge Sénégal dagg billet àndandoo ak yow waaye papa safal ka mi nga xëy da koo defar ba ko seen ñee ko bëgg a mel ne moom mooy safal ci ni nag papa safal safal ni ci ni Ceerno Abdourahmane mu ngi nii toog waaye nag sëriñ bi kii nga àndal di Malick Wilane sopp loolu yàlla ak rasulilaay gëmul ku yow nga jaar defar jëmmam ji ba ko gis bëgg ko moom it mu jóge nag Sénégal dagg billet àndandoo ak staff yi ñikk teew ñu ngi koy gërëm di la xamal nag ni sa njaboot gii teew ki leen war a bégal mooy alaaji Abdourahman Abdourahman nag bu nu ko dee wax sa turandoo tax Abdourahman Gaye Abdourahman Bari ma bëggoon baatin bi suñu borom jëmm dëxañ sa jëmm ju tedd ji nga sotti ko ci jëmmam ji mu gudd fan yàlla musal ko mu àgg new yoon te benn pakk bañ koo féel lu tax daa doon loo xam ne fi mu ko indi ak lim ci yokk adduna bépp xam nañu ko yar teggin doon doomi soxna te amul frontière bu waxee Cheikh Seydi Hadji Malick nga ni eskay mu dugg ci kër Serigne Touba nga ni eskay mu dem ci Baye Limaamu nga ni kenn du moom kon Abdourahmane ñu ngi lay bégee waaye nag sa compagnon boobu nag di direct rasulillahi di sa lumière bi nga xam ne boo tegee tànk mu ne ray ampolu maamam bu tedd bi mooy kan maami Aydara Chérif intellectuel hors pair civilisé ba bokk gisee bëgg ko yaru lool ba boo jaxasoo moom naw ko mi ngi noonu toog sewet àndandoo ak yow yàlla na yàlla fayal ñu ko waaye sëriñ bi nag nga ànd ak jàmbaar joxe daa lu ba ngay doon moom muy yow mooy kan Mouhamadul Hamdul Wan ñu ngi nii toog boo ko nee jàkk xel dem ci Cerno Abdourahmane Bari mbooloo mi Cerno dafa am lu ko dal alxuraan rek la gëm alxuraan lay ubbi ko alxuraan rek ci lay defar li ko yàlla jox. liko yàlla joro moy mbolo mi tok ci kanamam kon nan ko tendre micro bi déglu ko mu jàngal ñu khatmul alquran bi ndax wacce non fi kamil alquran mom lay tere wa pari Paris ku ci alquran faj doo aajo doomu aadama yi kon nak Cerno bismillah ci khatmul alxuraan bi ñu soko tàmbali. ان الحمد لله والصلاه والسلام على اكرم الخلق asrafil المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokk yi gannaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñu doon xaar muy bés bu mag bile dippi daaw ci waxtu wii ba heure bile tey agsi na ñu jotoon fee jiital ab kaamil ci ngoon jàng ko fi ci ndigalal sëriñ bi ak kilifa yu baax yi fi nekk mooy imaam yi ak mbokki taalibe yi fi nekk ñu pare ca kaamil ba sëriñ bi war a jàng xatmu bi sëriñ bi mu ne nag gannaaw bi mu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sëriñ bi nee na nu ngi nuyu mbooloo mi te di leen siyaare bu baax sëriñ bi neena mu ngi nuy fàttali di fattali boppam ragal yàlla ak jaamu ko sëriñ bi mu ne mbooloom islaam ko waral sëriñ bi mu ne ndaje loo xam ne diine moo ko waral bu lislaam bi bu lislaam ba suñ ci jàngee alxuraan man na. sëriñ bi mu ne buñ ca jàngee alxuraan kay moomale mbooloo mat na. suñ ci jàngul alxuraan matut. buñ ca jàngul alxuraan nag matul. kon ñu jàpp ne. sëriñ bi ne nag kon nag nañu jàpp ñi doon daw daaw beren. ña doon daw daaw baren. ngir jotaay bi. ngir ka bi de. yàlla ci mbaaxam. sëriñ bi mune ne yàlla ci mbaaxam. may nañu. may nañu. mu matee niñ ko bëggee. mu matee nanu ko bëggee. kon ñu ngi nuyu ñëpp. sëriñ bi mu ne kon kay ñu ngi nuyu ñëpp. di siyaare ñëpp. di siyaare ñëpp. ñu jàng xatmu bi. sëriñ bi mu ne ñu jàng xatmu bi. ñu teewal suñu yéene. waaye ñu teewal ca suñu yéene. ci li ñu doon def yëpp. sëriñ bi mu ne ci li ñu doon def yëpp. ngir lislaam la. sëriñ bi mu ne ngir lislaam la. lislaam bi mu jeex. sëriñ bi ba mu jeex. lépp alquran la lépp alquran la hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mën nañ ko wax ne alquran la mën nañoo wax ne alquran la ndax nit ndax nit jikko bi la jikko ba la sunu yaay Aïcha sunu yaay Aïcha radiyallahu anha biñ ko laajee ba ko laajee لن مودون جيكو يننتي بي صلى لن مودون جيكو يننتي بي صلى الله عليه وسلم دفلن وق القرآن دفنلن القرآن كون القرآن سرين بي موني كون كي القرآن ما واخك بن طالبي سرين بي موني دا واخك بن طالبي بو فيس تيب بو فيس تيب موني ما تيري بي دال موي ادنا اك الاخره موني كو سرين بي تيري بي دال موي ادنا اك الاخره ma ne ko firil ma ko. sëriñ bi mu ne ko déet firil ma ko. waaye bi mu duggee ci pirimi. sëriñ bi mu ne waaye ba taalibe ba duggee ca pirima. keroog li ma bëggee li ma bëggoon kayee. sëriñ bi mu ne keroog la bëggoon a xëyee. kay boobu moom fomm naa ko. kay boobu moom kay sëriñ bi nee na fomm na ko. pour déglu waa ji. ngir ka déglu waa ji rek. alquran. sëriñ bi mu ne alquran. mooy sunu lépp. mooy sunu lépp. yonent bi. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mooy lépp jullit ñi. mooy lépp jullit ñi. mooy lépp lépp. mooy léppi lépp kay. kon sëriñ mu ne kon. su ngeen jàngee alquran. sunu jàngee alquran. ñu toll ci mottali ko. ñu toll ca mottali ko. nañ jàpp ne. sëriñ bi mu ne nañu jàpp ne. lépp lu ñu doon def. lépp lu ñu doon def. diggante daaw ak ren. diggante daaw ak ren. ngir jotaay bi. ngir ko jotaay bi. ñu ngi koy mottali sëriñ bi mu ne kay ñu ngi koy mottali. kon nag sëñ bi mu ne kon nag. yonent bi nee na. yonent bi sallallahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na. liggéey yëpp nag. liggéey yëpp nag. mu ngi matee ci matukaay mu ngay matee ca matukaay ba. kon nag alhamdulilah sëriñ bi mu ne kon kay alhamdulilahi rabbil alamin. dellu ñu wax ne. sëriñ bi mu ne mu dellu ñu wax ne. alquran. alquran. lima quriya. loo ko jàngee loola la. kon ñu raxas xol yi sëriñ bi mu ne kon nañu raxas xol yi def ci li fa nekkoon def ca la fa nekkoon moo de yàlla kenn mooy yàlla kenn la yonent bi yàlla ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónnee loolu moo nekk seriñ bi mu ne loolu moo nekk ci xolu jullit bu nekk ci xolu bu nekk kon ñu delluwaat sëriñ bi mu ne kon ñu delluwaat fàttali loolu fàttali loolu sunu bopp sunu bopp ñu yiine ñu yéene yiine bu sell yéene bu sell ci mottali kaamil ci mottali kaamil bi jàpp naa ne sëriñ bi mu ne jàpp liggéey bi ni mu rafet liggéey bi ni mu rafetee. ci yéene yi ci doxalin bi ci doxalin bi. ci mbooloo mi ni muy àndee. ci mbooloo mi ni muy àndee. ku ci nekk ku ci nekk. yëg moroomam ci boppam yëg moroomam ci boppam. yëgin bi nga yëgaloon sa bopp. yëgin bi nga yëgaloon sa bopp. ba yëg ko yëg moroom ma ci sa bopp. ba yëg sa moroom ci sa bopp. yëg yëg yooyu. yëg yëg yooyu jeex. تي الله سبحانه وتعالى القرآن واخنا سري منن مونتي القرآن واخنا لولو لي القرآن داني اللي في نك اللي في نك يب دفا جيخ دفا جيخ يب غاوش رب مودس نك جمي يالا جنك واي واي لي لي ني فريكو نك سري منن لي لي ني فريكو نك ني ني يلا نينا يلا نينا اللي في نك يب اللي في نك يب ده في جيخ ده في جيخ دس في يلا دس في يلا جي واي سو سيتي فريما سرين بي مون وانت بو قولي فريما ده فلا واخني ده فلا اللي في نك اللي في نك جيخ جيخنا يلا رك يلا في نك لم لا بوغا واخ لم لا بوغا واخ مو يلا رك مو يلا رك في نك نك يلا رك ام نك غاي دوندي سرين بي مون نوي دوندي yow nit ki yow nit ki. doon nga nit doon nga nit. nooy dundee nooy dundi. te yàlla kenn te yàlla kenn la. alhamdulilah ah sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin. xam nga kilifa yi ñu ngi toog sëriñ bi mu kilifa yaa ngi toog. du ñu mën a guddal wax bi. du mën a guddal wax ci waxtu wile. waaye. li taxoon ñu jox sëriñ bi mu ne li taxoon ñu jox ko ko. kaddu gi kaddu gi. mooy xatmu gi mooy mottali téere bi. waaye sëriñ bi mu ne waaye. ñu fas yéene nag ñu fas yéene dugg ci xatmu bi dugg ci xatmu bi. def ci yéene yi def ci yàlla mottali yàlla mottali lépp. innamal ah, a'maalu bi niyaat ndax kat jëf yépp mu ngay sottee ci yéene ba. innamaa te nit ku ne la nga yéene loola la la yàllaay jox. allahumma salli allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim.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 من سر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين آمين. اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتزاوز عنا ما كان في تلاوته من السهي والنسيان أو تهريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعظيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو ضيق اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مطغم أو إجهار بغير بيان أو مد أو تسديد أو همزة أو ذذن أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل اللذان اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرعه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والشهادة والبسارة والأعمان ولا تخرب لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبينا قبل المنايا عن نوم الغفلة والكثلان آمين وعمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير آمين. ومن أكل الديدان وبيد وذوهنا يوم البعث وأعتق رقابنا من النيران آمين. ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على آمين. وأسكننا في وسد الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعاءنا بحق توريت والانزيل والزبور والفرقان أعدنا جميع ما سألناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا باللعات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت سميع العليم وتب علينا إنك أنت تواب الرحيم اللهم هينا بهنة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن والبسنا بخلقة القرآن وآفنا من كل بلاء الدنيا وعاب الآخرة بحرمة برحمة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا كريما وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سدرا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وآفنا بإناية القرآن ونزنا من النيران بكرامة القرآن آمين وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكثر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن آمين. يا ذا الفضل والإحسان اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء رضاء وبكل هذ حسنة وبكل نش نعمة وبكل ربع رفعة وبكل همن هناء اللهم ارزقنا بالالف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالهاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالظال إكاء وبالراء رحمة وبالظاء ذلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالثاد صدقا وبالذاد ضياء وبالطاء دهرة وبالهاء إغفرا وبالأين علما آمين. وبالغين غناء آمين. وبالفاء فلاحا آمين. وبالغاف غربة آمين. وبالكاف كفاية آمين. وباللام لطفا آمين. وبالميم موئذة وبالنون نورا آمين. وبالواو وصلة وبالحاء هداية آمين. وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه آمين. إلى روح سيدنا محمد عليه السلام آمين. وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين آمين. وإلى أرواح آبائنا آمين. وأمهاتنا آمين. وإخواننا آمين. وأصدقائنا آمين.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 سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الى آله وأصحابه آمين. وذرياته يا رب العالمين آمين. نسألك اللهم آمين. أن تجعل ثواب ما قرأناه آمين. من القرآن العظيم آمين. إلى آبائنا آمين. وأمهاتنا آمين. ومشايخنا آمين. وأزواجنا آمين. وأولادنا آمين. وإخواننا المسلمين آمين. الذين سبقوا بالإيمان وضائف رحمتك ورضوانك عليهم آمين. اللهم حل الأعوام في محل الأبرار وتغمتهم برحمتي أنا الليل أدراف نهار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انقلهم من ديق اللهود والقبور إلى ساعة الدور والقصور في سدر مغدود ودله مندود وهل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقروءة ولا ممنوعة مع الذين أنمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم من عبادك الذين تباهي بهم ملائكتك في الدنيا والآخرة وارزقنا وإياهم حسن النذر إلى وجهك الكريم مع الفائزين برحمتك ورضوانك من عبادك الذين خالدين تجري من تاتهم الأنهار في جنات النعيم دعويهم فيها سبحانك اللهم موتية فيها سلام سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين فاتية صلاة فاتية لكن nag dañuy bëgg a jox parole bi jàmbaar bis bi ak événement bi moo leen ko jox ki ci jëkk mooy la marraine ajal ci juma jeng jaxate comité d'organisation bi nee na mënuloo bañ a yëkkati kàddu jëmale ko ci assistance bi nga xam ni ñoom ñëpp seere nañu ni yaay suñu marraine suñu ci jógee nag kii tëj kàddu gi nag mooy ki fi président de la république son excellence Macky Sall yebal mu baax lool bari xam-xam lool bëgg loolu Macky Sall waaye nag bëgg Thierno Abdourahmane Bari ba tax mu constituer cette grande délégation à la personne de Amadou Diallo ak Adjaratou Awa Diop Mbacké kooku mooy Bassirou Sène son excellence soo xee rek ñu wëlbatiku nag continuer programme bi bégal ñëpp ba fajal si xar léegi daal ñu ngi jox kàddu gi Adjaratou bii toog ci sama wet di Adjaratou bii marraine bi ñëpp xam ko ci Adja Juma Dieng Jaxate bisimilah. ubbikoo na ci bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla mi nu bind julli ci muhammadu rasulillahi sang bu tedd ba nee jataay bii ñu toog tey jataay bu màgg la ci moom bari woon naa ay itte yun ma waxoon yu bari lool ma noté ko waaye ma bàyyi yépp tànn bii ma jàng parce que sëriñ bu tedd bii ko waral tey di Cerno Abdourahmane Bari bu boggal ku ko xamul itam nattu la de waaye ku ko xamul dégg nga turam ak ay jëfam kon kooku su ay daayiraam àndandoo dajaloo ñëw tey sàkkuma ci sama jëmm ji ni ma yaay doon sunu marraine jar naa sant sunu boroom sant nag président Ousmane Balde Ousseynou Fall ajartu Faatu Sidibe ak njabootam ak ajartu Mama Dramé ak njabootam gi mu ko seq lépp organiser ko ba mel nii di sant nag ñi nga xam ni samay nawley jigéen leenu yu toog ci saal bi cekk ci mag tey di référence di ajartu xarit Jóori nee na mi ngi leen di nuy yéen ñëpp ci di sant di nuyu nag sama càmmiñ yu baax yi nga xam ni ku ci ne da ngaa jiite délégation jóge ci biir réew mi mbaa nga jóge ci bitim réew dikk teew si pour réew si nag bis wéy bi di sant nag te di ko beral nuyoo sunu ambassadeur Basirou seen moom rek kat mus fee nekk comme ambassadeur waaye jëmmale ju yàlla dimbali mu mën a teral gan mook soxnaam su tedd si mu àndal kon ñoo ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal mbooleem jullit bu teew ci saal bi tey di ñaanal sunu sëriñ bu baax bi yàlla bàyyi ko sunu kanam mu gudd fan ci ànd ak wér waaye nag di ñaanal sama président de la république son excellence l'homme de l'avenir du Sénégal El Hadji Macky sama teewaay bii ma teew tey ci saal bi yombalal na ma ko lool te mënoon naa demee neneen poste bii mu ma jox ma di ci def lu ma man ci sama kàttan incha allah danaa ko ci def ba li mu yéene ci man ma jëfal ko ko bu soobee yàlla nee na jataay bi ñu toog kenn xamul ci ban parti nga bokk kenn xamul ci man mbooloo nga bokk parce que nag lii mooy réalité Sénégal ay julit lañu fu ñu waxee turu yàlla di baatub laa ilaha illallah ñëppay sawar ñëppay sawar àndandoo en vitesse confondue ñu ñëw taxaw ci ko mu neex. communauté bii ku ko gis xam ne tey. communauté bi mu jàkkaarloo ku ko xam daal te gis ko teg sa bët xam ne yàlla rek moo nu boole ñor. li ñuy ñaan mooy gudd fan. li ñuy ñaan mooy gudd fan gu ànd ak wér. ak wérle. ak wérle. yàlla nañu fi toogaat ay. jëtaay yu yàlla nañu fi toogaat ay jëtaay yu bëree bëri. te tal ko. te tal ko nag. yàlla na ñu yàlla may mujj bu rafet. yàlla na ñu yàlla may sunu dund gi mujj gu rafet. lu ñu fi ñaan bu ñu jigee yàlla na ko yàlla. lépp lu ñu fi ñaan te teewlu ko ci barkeb alxuraan ji mu nu fi jógee yàlla na ko yàlla may. ñi jógee aussi feneen ñëw fii fekk. ñi jógee feneen jël avion mbaa ngi jël oto ñëw fekk sa jotaay bii. yàlla na nekk tuyaabu ci ñoom. yàlla na ko yàlla ful mu doon tuyaabu yu rëy ci ñoom. te yàlla na ñu dellu ci jàmm ak. yàlla na ñu yàlla delloo ci sunu njaboot ko ci jàmm ak salaam. bàyyi fi jàmm ak salaam. bàyyi ci réew mi jàmm ak salaam yàlla na ñu yàlla defal jàmm na yàlla defal jàmm àdduna ak jàmm àlaaxira alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah googu kàddu di kàddu gu ñëpp dégg ci ñëpp rafetlu ko léegi nag ki may jox kàddu gi mooy son excellence excellence kàddu gaa ngi yow lay déglu euh, salaamaaleykum sëñ Abdourahmane Bari maa ngi lay nuyu nuyu bi gën a bi gën a sell nous avons nuyu bi gën la euh, son excellence monsieur le président de la république Macky Sall le euh, premier ministre Mohamed Boun Abdallah et ak ministre des affaires étrangères Mankeur Ndiaye mi nga xam ne ñuy département. sant nañ ma ma ñëw nuyu la sant la gërëm la wax la ne la président mu ngi sa wet mu ngi lay déglu gis na gis na sa taxawaay ci njaboot gi mu ngi la ciy sant di la ci gërëm teewaay bi nag ak xew-xew bi dafa am solo lool ci ñun ak senegal moo tax kilifa yu tedd yu mag la àndal ki ci jiitu léegi mooy soxna Juma Jeng Jaxate jox nañ ko parole léegi mu wax wane ne président de la république ci boppam moo ko fi yebal gis naa ordre de mission bi nga xam ne moom lañ ko defal moom nag buñ ko fi yebalee ñun duñu bet ndax xam nañ kuy soxna Juma Jeng Jaxate ba muy nekk ambassadeuru Sénégal ci walu mode ak culture di dem fu nek ci adina bi président de la république ak soxna président de la république diko ko tertu diko diko di teral booba du tayji bi ko président def ko aussi ambassadeur itinérant mat nako seuk sëkk ndax guddeeg bëccëg mu ngi dox ci lu kenn yegut ci li nga xamné ne mooy Sénégal kanam

Amadou Diallo fi ci Paris mom moy sen interlocuteur moy sen mom lañu war baxal ndax mom moy yor carte d'identité yi moom moo yor passeport yi mom moy yor yi nga xam ne la sénégalais soxla buñu bëggee dem ak dik mu ngi fi and ak man and ak ki nga xam mo top ci mom di soxna Mbacke madame Mbacke job euh ñu ngi and ak aussi euh, ku ñuy wax euh, euh, madame Malidia mu ngi nekk ci ambassade bi ak man di liggéey ak man maa ngi ànd ak aussi ki ñuy wax euh, euh, Demba Sow nekk aussi ci consulat bi maa ngi ànd ak sa sa sa sa doom aussi di sa jerbaat di sama soxna di Banel Thieloo sa mbokku alpulaar la ñoo ànd aussi indaale naa ko ndax mu ne ginnaaw yow yaay ñëw ala kulli alin dina ñëw ziyaare la nuyu la maa ngi ànd ak ko xamné somom xarit le administrateur civil la mooy directeur de cabinet ministre Mariama Massar ministre de la famille ñu diko wax Khayar Mbodj mu ngi ni tok and ak man mu ngi aussi mu ngi lay ziare mu ngi lay nuyu ak ñeneen ñi nga xamné ñepp mëna amana mënuma leen tuddu waye ñew ñu dal ñew nak ñom te sen taxaway fi moy biral fi nguurug Sénégal gouvernement Sénégal teg Alaaji Abdourahmane Bari ak mbooloo mi nga xam ne moom la àndal te muy mbooloo mu taaru mbooloo mu am Pastef dëgg-dëgg yàlla bi ma ñëwee Paris ak léegi am na at waaye dëgg-dëgg bégg naa ci ni ma gisee seen taxawaay Sénégal tey jigéen ñi dañ am cër bu am solo jigéen da cee am cër bu am solo te président xam lolu motax bu ngeen setlo amna nomination yu beuri yo xamne ne def na fa ko pour jiital jigen woné kàttanu jigéen moo tax ba fi ci consulat bi sax ki top ci consul bi ku jigen la waye jigen ñi niñu niñu niñu taxawé tay ak sen Pastef sen marraine madame Diouma Dieng Diakhaté lolu day woné Sénégal réewu démocratie la réewu teranga la

dañoo bëgg ñan ñooy wut def auto suffisance boobu mooy sénégalais yi nga xam ne dañoo war a liggéey ndax ñëpp mënuñoo liggéey ci bureau ñëpp mënuñoo liggéey ci gannaaw euh, ci ci yor yor machine euh, à calculer wala machine ordinateur waaye ku nekk mën naa dem sa pàkk suuf liggéey fa man sa bopp moom sa bopp te loolu ci le président Macky Sall nekk def na li ñuy wax PUDC nga xam ne tey ñu ngi def àll bi di ko di ci def ay tali di def ay ay ay tol di def ay ay forage pour nit ñi mëna a tedd leneen li nga xamne ne mo jup jub si moo tax bi ma bëgg nga def ci ñaan bu baax baax baax baax señ bi wax legi di mbay euh muy met de cérémonie bi nga xamne ne am na xam-xam am na cër ñun ñëpp xamé nañ moy kan wax na yaay kan sëñ bi fii ñi fi ñëpp am nañ yaakaar ci yow ñun tamit am nañ yaakaar ci yow moo tax ma di la dénk sama ñaan bii dañoo seetlu ne àddina bi fépp foo xam ne pétrole feeñ na fa ak gaz loolu la wax malédiction day mel ni saytaani moo fa dugg te kenn du xam fu saytaani boobu jóg yàlla def na tey ñu ngi ñuy jiiñ ne fii ak ñeenti at juróomi at Sénégal dina nekk ci réew yi nga xam ne ñooy juróom doon juróom-ñaareelu réew ci àddina bu am gaz ak pétrole lu mel noon nag dafa tax ku nekk tey yaa ngi taxaw pétrole pétrole te benn fepp génn gut kon sëñ bi ñu ngi lay ñaan ci sa kattan sa mbaax ak li la yàlla may li la yàlla jagleel nga ñaanal Sénégal ndax ndax mu sedd ndax pétrole boobu ñëw nekk alal ju lew nekk alal ju sedd ñu muurloo ko sénégalais yépp mën cee jot sénégalais yépp mën cee mën cee mën cee xiwlu ba képp koo xamoon ne ndóol nga nekkoon ndóol googa dañ koo xamoon ne danga amoon tawat tawat booba dañ ñu ngi lay ñaan sëñ bi alal ji egsi te egsi ci jàmm ak salaam ñu muurloo ko waaw kooku daal euh, sëñ bi maa ngi la koy ñaan bu baax a baax fa nga dëkk aussi jamono yi ñuy wax zone sud jamono yële amoon na ay xat-xat mais yàlla mel na ni mu ngi ciy def sutura ba fi ñu ko bindoon fii ci France def ko zone rouge ba touristes yi duñ fa mën a dem yàlla def na loolu dimbali nañu ba loolu dindi nañ ko ba yaakaar nañ ni tourisme Sénégal dina gën a développé waat ci zone sud boobu. ñu ngi lay ñaan sëñ bi loolu nga ñaanal Sénégal ñaanal président Macky Sall ba zone sud boobu gën a dal gën a sedd ba jàmm rek am fa jàmm rek am Sénégal ñu ngi lay ñaan aussi fu nawet amati Sénégal bu foot ndox gaañ kenn yàlla ndox mi ñëw indaale euh, indaale jàmm ak salaam indaale xéwal sénégalais yépp muurloo ko ñu ngi bég nag ci daje bi ndax ràññe nañ fi ñaari jëmm yu am solo yuy wax lu baax di def lu baax di jàngal réew mi di jàngal Sénégal Serigne Abdourahmane Gaye xamuma peut-être tey lañ mës a ni face à face waaye yàgg naa ko seetlu ci 2STV moom ak sang bu tedd bi surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mamina ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu nuyu bu wér di ñaan yàlla gën a barkeel seen baat gën a barkeel seen liggéey euh, ñun ñun ay dong lañ sunu àlluwa demut fenn waaye nag li ngeen di liggéey gis nañ ko te rafetlu nañ ko bu baax a baax bala may jeexal sang bi euh, damay sant président daayira bi association bi ñu nuyu Serigne Fall ak jigéen bi nga xam ne mooy président Euh, jigéen ñi euh, seen taxawaay rafet na seen seen njub ràññee nañ ko ndax ni ñu jubee ni ñu baaxee moo tax tey ñu mën a am ndam bu toll nii donc sëñ bi maa ngi lay ziar bu baax di fedd li sunu kóllëre tey lañu yàlla def ñu gise waaye am nañ ci yaakaar ci gise bi am nañ ci yaakaar lool ci ci ñun ci sunu bopp sunu njaboot ak ci Sénégal bi nga xam ne moom rek moo ñu ñor moo tax ñuy wax fii waxuñu ndax bii parti waxuñu bële ñun ay républicain lañ bokkuñu ci bii parti bokkuñ ci benn parti Sénégal la ñuy waxal li ñu ma fi wax yépp Sénégal la tax may wax yàlla lu wóor la donc maa ngi lay ñaan nga ñaanal Sénégal jàmm rek am fa nga ñaanal Sénégal lépp lu fay xéwal ñépp bokk ci jàmm ak salaam nga ñaanal Sénégal lépp luy musiba ak balaa bu fa jublu yalla la ko ba lolou do du exi ñu ngi la koy ñaan di ñaan fi France aussi ñi nga fi ne di liggéey ndax Sénégal yalla may leen ay nit ñu am fayda ñu am nous ñoo fi ne di liggéey di bis bu ne Sénégal alal ju am solo te bëgg Sénégal bëgg donc sëñ bi Nous ngi lay ziar di la gërëm di bi nga xam ne président mu ngi ko am ci yow ak ñun ñëpp ñu ngi ko am ci yow wasalaam maa ngi leen di ziar di jégalu ci wax ji bu guddee jërëjëf. jërë ngeen jëf dégg ngeen kàddu son excellence. léegi nag ñu ngi gërëm son excellence l' di ñaan Thierno Abdourahmane Bari mii ci jëmmi boppam tontul nu ko waaye ngi Abdoulaye Wilane. mu tok ci kanamu serigne bi nak jotali tontul serigne bi ci son excellence l'ambassadeur bismillah alhamdulillah alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وأكرم الخلق خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد القائل لا تجتمع أمتي على الدلالة ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس تاج العارفين شيخنا أحمد الشيشاني mbokk yi dañuy dollee sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di sant yàlla comme ni ko Modou Mbaye waxee te xam ni ku doon xaar waxtu wile si na tey ci kàddu yile jib bàyyi ci kilifa yile wax dëgg yàlla bu nu joxee sëriñ bi ne na leen tontu yaakaar naa ne ñëpp dañuy dégloo ñëpp dañuy kontaan xol yëpp dañuy ubbeeku kon ñu bàyyi sëriñ bi mu waxtaan ak jom sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne gannaaw bi nu sante yàlla julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi nee na ñu ngi nuyuwaat mbooloo mi rek ah, sëriñ bi mu ne waaw mbooloo mi taaru na ñu ngi ciy sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne mu ngi ñuy fàttali fàttali boppam ragal yàlla ak jaamu ko ñu kilifa yi. sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu kilifa yi. comme nit ñu nuyoo. comme ñoom nit ñu nuyoo. parce que alquran moo wax ne. suñ suñ leen nuyoo. na nga bi. na delloo nuyoo bi. mu gën a rafetee. na mu gën a rafetee. wala boog. wala nga góor góorgóorlu ba delloo ko comme niñ la ko nuyoo sëriñ bi mu ne xam na ne kilifa gi wax na fi ay kaddu yoo xam ne sëriñ bi mu ne kaddu yu matale la sëriñ bi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne dafa wax ne koo xam ne yitte julli yi du sa yitte koo xam ne yitte jullit ñi doonul sa yitte bokkoo ci a ah, yow da bokkul ca jullit ña waaye ambassade itam. waaye ambassade itam. su fekkee ne. su fekkee ne. yitte sa waa sa waa réew. yitte sa waa réew. nekkul sa yitte. doonul sa yitte. bokkatoo ci Sénégal ayaw ah, da ngaa bokkatul kon ci Sénégal. waaye moom sëriñ bi mu ne wante moom. bi mu ñëwee ba léegi. bi mu ñëwee ba léegi moom sëriñ bi. waxuma jëmm bi ma gis de. waxul ne jëmm jim gis de. waaye bi ma ñëwee ba léegi. waaye ba mu ñëwee bam léegi. léeg-léeg taalibe dugg. léeg-léeg taalibe dugg. wax ma ne ambassade bi ne dana ñëw. mu ne ko sëriñ bi ambassade bi ne dana ñëw. waaye ku baax la nag. waaye ku baax la nag. kay waaw waaw. dafa war a baax. daa war a baax di. ku baax. sëriñ bi ne nag ku baax. ñëpp seet la. ñëpp seet la. tànn la tànn la. ñu ne yow yaay ki baax. ñu ne yow yaay ki baax. wala ñi ci ëpp boog. ñu wax ne. ñu ne. yow yaay ki baax yow yaay ki baax. yow yaay ki baax yow yaay ki ci mbooloo mi ci réew mi ci réew mi. yaa baax ci réew mi yaa baax ci réew mi. ñu tànn la ñu tànn la. kooku su tànne kooka bu tànnee. bu kenn weerante ne bu kenn weerante ne. ku baax ku baax. moo ko tànn tànn. ku baax la tànn ku baax it la tànn. noonu laa ko gisee noonu la ko sëriñ bi gisee. président bi ko yebal fii. sëriñ bi mu ne président bi la yebal file. li ëpp ci réew li ëpp ci réew mi. ñoo wax ne ñoo wax ne. moo gën a baax moo gën a baax. moom lañ ñu gën a wóolu moom lañ gën a wóolu. ñu jox ko réew mi jox ko réew mi. kooku su la tànnee kooku bu la tànnee. noonu rek nga mën a ah noonu rek nga mën a ba nga mën a mel. tànn bi sax tànn bi sax. da ngay gis ne da ngay gis ne. ñun ñëpp ñun ñëpp. sénégalais yi nga fi sénégalais yi nga yi nga fi dajeel. yi nga fi taxaw yi nga fi taxawu fii. ak ñi ci nekk ci réew ma ñoo bokku tànn ndokk nag bi nga melee ni nga mel. sëriñ bi ne ñu ngi lay sant bu baax. yow ak ñi nga àndal. kaddu gi matale na kaddu gi matale na. li tax président bi wóolu. li tax président bi wóolu la. gis nañ ko ci yow gis nañ ko ci yow. ndax benn bindkat. sëriñ bi mu ne ndax benn bindkat. mu ne nit mu ne nit. mu ngi làkku ci gannaaw làmmiñam mu nga làkkatu ca gannaaw làmmiñam. soo waxee ñu xam sooy wax rek ñu xam la. nit ñi nag muus nit ñi nag muus nañu nag. léeg-léeg ñu wax léeg-léeg ñu wax. wax wax. bi wax bi. ba wax ba. nga foog ne nga yaakaar ne. noonu la noonu la. waaye loo muus loo muus muus mbooloo mu toll nii soo waxee ci sunu kanam ñun ñëpp ñu d'accord kon loola moo nekk ci yow sëriñ mi mu ne kon nag jërëjëf nag ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar sëriñ bi nag ñu ngi nuyu sunu jigéen bi ku baax la taxawaayam taxawaayam ci réew mi ci réew mi avant muy dugg ci politique avant muy dugg ci politique sëriñ bi nee na ci la ko doon dégg ci la ko gëmoon itam ndax ndax li may digal waa Bogal. sëriñ bi li may digal waa Bogal. di ko di ko digal taalibe yi. di ko digal taalibe yi. di ko digal jullit ñi di ko digal jullit ñi ñëpp. di ko waa Sénégal di ko digal waa Sénégal yëpp. mooy jàng mooy jàng. liggéey liggéey. jaamu yàlla jaamu yàlla. bul bañ kenn bul bañ kenn. moom moom. xamee nañ ko ci liggéey xamee nañ ko ci liggéey. balaa muy dugg ci lii bala moo dugg ci lii. adduna di dox adduna di dox. ba ñu xamante ba ñu xamante. xam bu wér xamante bu wér. sol naa suma dàll. sëriñ bi na sol na dàllam bii. dem ci këram dem këram. kon ku ma xam Ndakaaru. comme nag ku ko xam Ndakaaru. suñ la waxee ne dem naa ci kër diw. suñ la waxee ne dem naa ca kër diw. ko kooku. kooka kon am na fu mu kon kon am na fu mu ko toll. li nga seede ci moom. li nga seede ci moom. yow monsieur ambassade bi. yow euh, monsieur le ambassade bi. Mouhamad Al Bachir Mouhamad Al Bachir. seen di seen. ñu ngi lay nuyu bu ngi lay nuyu bu seede ci moom noonu la. li nga seede ci moom noonu la. kon alhamdulilah. sëriñ bi ne kon alhamdulilah rabbil alamin. ñu ngi nuyu suñu mbokk. ñu ngi nuyu suñu mbokk. Amadou Diallo. Amadou Diallo. Eh, am na bés. am na bés. ci conférence yi. ci conférence yi. moom dong moo teewaloon. moom dong moo teewaloon. président de la république. président de mu wax ci wax yoo. mu wax yoo xam ne. ku ko déglu ku ko déglu. nga xam ne ci xol la bay nga xam ci la bàyyi koo. benn bindkat def benn def ne. wax bu bàyyee ko ci wax ko ci xol. moo mën a am place moo mën duggoon nañ duggoon nañ. duggoon nañu. ba ñu yëg ko ba ñu yëg ko. ba saa tey. ba yàlla tey si. am na ci loo xam ne am na ci loo xam ne. maa ngi koy sëriñ bi nee na mu ngi koo. téye ba léegi mu ngi koy nettali ba léegi. alhamdulilah rabbil alamin. Modou Mbaye. sëriñ bi mu ne Modou ay sa présenté suñu jigéen. sa présenté suñu jigéen. di se di sunu sëriñ. di sunu sëriñ itam. mooy Awa Diop Mbakke. mooy Awa Diop Mbakke. ndax noonu la. ndax noonu la. diina bi laaj na loolu. diina bi laaj na loolu. Eh, ku bokk ku bokk ci fi mu bokk. ci fi nga bokk. suñ tasee ak yow suñ dajee ak yow. manuñ laa tuddee dara manuñ laa tuddee dara lu moy sunu sëriñ. noonu dong la sëriñ bi mu ne noonu dong la nag. kon jërëjëf kon nag jërëjëf. boole nag mu boole ko nag. mu bokk fi mu bok mu bokk fa mu bokk. président bi wóolu ko président bi wóolu ko. yónni ko yónni ko. kooku doy nañu si. kooka doy nañu ñun ci lépp. fi mu bokk fi nga bokk. doy na na. président wóolu président wóolu la. doy na ba tey doy na. ku président wóolu ku président wóolu. ci mandaa gi ci mandat bi nañu wóor ne nañu wóor ne ñun ñëpp a ko wóolu. kon nag na ngeen yokk góorgóorlu. di nuyu ñëpp di nuyu ñëpp. di siyaare ñëpp di ñëpp. kontaan nañu lool kontaan nañu lool. jotaay bi jotaay bi. fa tabaarakallah li nga seede. li nga seede. ci président daayira ci président daayira yi. loola rekk a ci dekk. ku ñu xam fi ñu dekk fi ñu dëkk. at bu nekk at bu ne. ma fas yéene ñëw fii mu fas yéene ñëw fii. kon loolu du caaxaan. ah loolu kay du caaxaan. dafa am benn kilifa. sëriñ bi daa am benn kilifa. boo xam ne ñoo ànd ci avion bi. boo xam ne moom ak sëriñ bi ànd ci avion bi. bi ñu wàccee bi ñu wàccee. may nuyuwante ak taalibe bi muy nuyuwante ak taalibe yi. mu xool ni nit ñi bégee mu xool nit ñi bégee. mu ne ma sëriñ bi mu ne ko sëriñ bi gis nga lii. li rek jar na nga ñëw lii rek jar na nga ñëw fii. dugal mbekté dugal mbégte. ci xolop julit ci xolub jullit. am lu ci yonent am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax. alhamdullilah rabbil alamin sëriñ bi ne nag nañu lool. di nuyu kilifa yi yëpp nag di nuyu kilifa yi yëpp di leen siyaare bu baax di leen siyaare bu baax. guddi sëriñ bi mo ne guddigi ñun lañ ko. askane ñun lañ ko askanalé waye Sharif. waye Sharif. Maamin Haydara Maamin Haydara. ak Abdourahmane suma ak Abdourahmane turandooram. suma doo suma tooma. di tooma xam. ñoo moom guddi gi yéen moom guddi gi. ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di déglu. ngeen dugal. ngeen dugal. mbégte ci sunu xol ci sunu xol. ci jikko yonent ci jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngeen dugal ngeen dugal. tawhiid te wéetal yàlla. ci sunu xol ci sunu xol. ci yàlla ji ak jë yàlla ji. ci jëmmu yàlla ga kay. loolu la ñuy xaar loola la ñuy xaar ci yéen. nu manti demee nag. ma leen di ci wër bu seriñ bi nee na def leen di ci bu baax. dafa am benn bis sëriñ bi mu ne daa am benn bés. ma génn ci suma néeg. mu génn néegam. ma daje ak xale yi. mu daje ak xale yi. ci saal bi ci saal bi. mu ne koy fayal télé bi. mu ne waay fayal télé bi. ku ñu kenn ci ñoom. kenn ci ñoom. mu ne ma ah. mu ne ko ah. ñi nga bëgg seetaan ñi nga bëgg a seetaan ñoo fi nekk de ñoo fi nekk de ne ko kan mu ne ko kan mu tudd ma ne ko mu tudd leen mu tudd leen ma daldi toog sëriñ bi nee na mu daldi toog ñu ngi jàngale réew ñu ngi jàngal réew mi yéen a ngay jàngal réew mi yëpp loolu mën a wax sëriñ bi ne loolu la mën a wax di léeg-léeg ñu gàgganteku ci ñoom ñu gàgganteku ci yéen ci masaayila ci masaayila léeg-léeg léeg-léeg ñu gàgganteku ci ñoom ñu gàgganteku ci yéen ci siira yonent bi kon yéen ñi toog. kon yéen ñi toog. ngeen xam ne. ngeen xam ne. loolu moo ñu toogloo. loolu moo ñu toogloo fii. bu kenn tayal bu kenn tayal. bu kenn gëmmentu ñu déglu leen ñu déglu leen. alhamdulilah rabbil alamin. Euh, Cheikh Mouhamad al Bachir. kontaan nañu lool. nangul nañ la sëriñ bi ne nangul nañ la nag daanuñu ko defal séeréer nag waaye yow de nangul nañ la nag bu baax a baax a baax yàlla yàggal la fii ci jataay bi yàggal la ci palaas bi li nga ñaan li nga ñaan danañ ci ñaan danañ ci ñaan ndax loolu soxal nañ ndax loolu soxal nañu ko soxal bu baax réew mi mooy sunu soxla mooy sunu soxla yàlla xam na yàlla xam na ko yéen ñi ma jege yéen ñun ñi ko jege xam nañ loolu ci ma wallaahi kon nag fitna yooyu fitna yooyu yàkkamti rek yàkkamti rek ñàkka doylu ñàkka doylu rek gëm yàlla man gëm yàlla gu manki rek jaru ko wallahi jarutu ko man nga wax sëriñ bi ne na man ngaa wax kilifa kilifa ci biir néeg ci biir néeg wala nga wax wala nga waxat borom xel borom xel yi ci biir néeg ci biir néeg ba mu sotti ba mu sotti fekke toolu fekke du noonu fekk na du noonu fekk na du nii waaye alhamdulilahi rabbil alamin waaye nag ñëpp yemuñ ñëpp yemuñu. kon nag kon nag. li ñuy digal kilifa li ñuy digal kilifa yi. gën a góorgóorlu gën a góorgóorlu. ci jub ci jub. ak jubal ak jubal ak jégalaate ak jégalaate. loolu dong la nag réew mi laaj na ko réew mi laaj na ko nit ndax nit. ak morom ak morom ma yemuñu xel yemuñu xel. gis nga xel sa gis nga xel. fa fala yàlla yónnee foofa la yàlla yónnee yónent yi. من كان عدوا لجبريل كيف كوينونو جبريل فانه كما لموم جبريل نزله ما وجع القران تقول ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا كنك الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين كيف موم الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين نوي دفي نوي دفي رك دينا لا دي سو كاسي سو كاسي سو ديمي سو ديمي بيجيس دك بيجيس دك bu boobaa yàlla dimbale la. loolu gan mooy ngannaaw loolu mooy ngannaayal julit. ngannaaw njiit nganna ngannaayal njiit. da ngay fexe rek da ngay fexe rek. ba gis dëgg rek ba gis dëgg rek. mooy canag mooy canag. bul faale nag bul faale nag li ci des la ca des. dëgg. mooy yàlla. yàlla mooy dëgg. alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam